A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin makin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima. Gannaaw bu ñu leen nuyoowaatee ci seen jataay bi nu duppee jataayu koor ñoo ngi ci suñu ñaar fukkeelu jataay ak ñaar ñu fas waxtaan ak ci laylatul xadar ku ne xam na ne tey jii di alxamis di bis boo xam ne ci la ñuy bokk na ci bis ñuy nattale laylatul xadar comme ni ko tënk boobu ko Sëriñ Tuubaa def te nettali ko ne bu am nañu ne bu feeñee bis sàngam bis sàngam lay laylatul xadar waaye ak donte ci li borom xam-xam yi dëppoo mooy laylatul xadar kenn mënta wax na bis sàngam la ndax suñu borom daf ko làq waye mom liñ dëppoo ñom ñep xam nañ ci xaaj mujj bi lañ lay nekk waye ñi ci des ñëpp wax nañ nekk ci fukki fani mujj yi lay nekk fukki fani mujj yi fukki fan mujj yoyu ku ne xam na ne amna fa bis bu ci am ci ñaar fani yak juroom ben gudi ga di juróom-ñaar te lu upp ci nit ñi nak mom lañ gëna japp jàpp ne mooy ba di ko màggal di ci def ay yëngatu yoy diine waye tamit di ci taxaw gudi ga. ba tax na lenn ci waroom xam-xam yi sax bu weeru amee ñaar fukki fan ba ba muy ba muy jeex dañuy lixtikaaf ci lañuy def lixtikaaf ñen itam di ci def euh, di ci dundal guddi di fanaanee naafila ba bët set di jiital seeni njaboot yooyu di yokk seeni jaamu yàlla ngir la nattale laylatul xadar ci guddi yu mujj yooyu laylatul xadar nag ñëpp dëppoo ci ne kenn mënu ko xam ak donte yàlla joxe na ay misaal ci bis ba géej ndoxum géej gi day soppeeku waaye tamit joxe misaal ci am ñu joxe misaal naan musi duñ génn dañuy woor waaye lu mu ca doon rek yàlla na numut kenn xam ko ndax kenn saxaaba yi nett ne am na benn guddi boo xam ne dundal nañ guddi ba bët set yontu sallallahu alayhi wa sallam daane leen xadar bañ ko fekkewaatee bañ leen ko laajee ñoom ñëpp dañ koo fàtte kon loolu itam day tegtale ne mooy li su li ko dëxañ ko suñu borom dëxañ rek ba kenn mënu ko xam dëxañ googu nag lay cosaan la la la la tax ak la la waral loolu kon a xam ne laytu xatar mooy guddi gi nga xam ne moo gën junni weer xayrum min alfi saarin juróom-ñett fukki at yu topp yoo xam ne guddi googu nga tombeek moom moo ko gën ci jaamu yàlla xam ne kon kuñ nangul jaamu yàlla ak juróom ñetti fat ak nangam te nga xam ko man ngay bàyyi ba bis bu ba ñëw rek nga ko waaye nag nekk euh, bis boo xam ne saa bu ñëwee la ca gën wala bis yuñ koy nattali yëpp ngay toog dundal guddi gi salaatu ala nabi waaye tam jangal alquran waye tam boko mene di jotaay ak sax njaboot tien doli ci yalla suñu borom subhanahu wa taala ñu bañ di neenal guddi yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ci netli suñu yaay aisha wax ne bu gudd yaronte bi neena bu gudd ga ñewé ka la gën lañ cey def muy allahumma innaka afun tuhibbul hafwa fa'fu anna nga xamne lolu lañ wax ne mom lañ cey wax ci guddi ga waaye mbokk yi duddal guddi ci boroom xam-xam kat wax nañ ni dugal guddi tegtaliwut rek nag gee jot nga toog bët set ak donte moo gën waaye la ëpp ci guddi ga nga toog ko di ko dundal guddi te jublu ko ca day tàbbi ci dundal guddi rawatina dundal goo xam ne ay nelaw moo ko jiitu bi maanaa waxtu gee nga tëdd ba minuit une heure nga jóg li des ci guddi ga nga jaamu ko yàlla wala tamit trois heures nga jóg di des ci guddi ga ba ba jant bi fenk jaamu ko yàlla su yàlla dogalee loolu lépp man wut ngay dem di fekke ji fuñ koy defee waaye tamit di fekke ji di teral ña koy def ci sa la la yàlla wërsëgal ci alal euh, kasaalika xeet googu mu mel ne nag bu jaam ñi xamoon li ci suñ borom dëxañ lépp buñ ne weer wi am na fukki fan ak juróom ba baa weer wi jeex kenn dootu nelaw guddi waaye kenn dootu taayalati ci lu baax waaye nag mooy li gën a jafe moo tax suñu borom yóbbu ko foofa ñu gën cee bàyyi xel te xam ne lu ñuy nattale la kenn xamu ko waaye kon nañ koy nattale ci fukki fa yu mujj yi bis buñ dogee rek nañ nañ jàpp tey mooy leetu xadar ba baa weer wi jeex wa axiru da'waana an alhamdulillahi rabbil alamin asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu.